yéenekaay yeeg la ñu xëyee dañu koy door rek l'observateur Chérif lañ ci àndal. jërëjëf Faty ñu tàmbalee ko ak président Macky Sall ca la nekk moom nag dafa mel ni ah, am na lu wax mooy li ngeen wax wàllu cet gi. Ah, jàpp na ni daal pëccëxoo gi ci réew moom war naa dakk wax moom nag yàgg na ko wax moom président Macky Sall nee na mbedd yi danoo salte tilim na fu nekk nga gis fa atelier et waaw moom histoire audience ba tamit bu nu ak vice président bu BP ah, British Petroleum ak tamit lépp loo xam jëm na ci wàllu Grand Tortue di projet boo xamante ni kon mbiram gaz la ak pétrole kon njiitu réew mi moom moo yëkkati yooye kaddu ci euh, lu ni mel ñu wax it ci li nga xamante ni mooy caution yi ci caisse des dépôts et consignation bi koy jël ci élection locale yi 120 millions lan euh, encaissé gum te ku ne xam ne ni coalition bu nekk 15 millions la euh, mooy ne kon gars yi demagun ah néew na de. wala gars yi dañuy xaar ba dernière minute ñu wax ci euh, yéenekaay bii di enquête affaire euh, bi nga xamante ne mooy gone gi nga xamante ne dafa faatu woon ci clinique de la leen mu mel ni am na ay kàddu yoo xamante ne yëkkati nan ko euh, jëm kon ci wàllu woowu ci ay confession ak ay seede. Guy Marius Sagna tey tamit lañ koy leet wala ñu firi ko njàng meeg njàngale mi la le quotidien tey ci la ñëw. kon mu mel ni école baa ngi noonu ak tamit taxawaayam école dans tous ses états la ko tuddee lii moom lu doy waar la lii lycée marchand ba nekk fële ca Rufisque dafa mel ni intendant ba nee na këpp na kees ga dem ñu waxit ci le soleil ak président Macky Sall mu nekkoon ci exposition universelle bu Dubaï 2020 mel ni Sénégal daal wane na taaram waaw ay atom lépp loo xam daal am na ko ci lu mu mën a jaay waa bitim réew moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di libération ma nga ca kaw Sénégal nee na amul benn Euh, exclusivité wala exclusion benn dagg xam naa investisseur yi lay def clin d'œil ab tamit libération bàyyigul ba léegi toox yi doon am fële ca Sicap mel ni kon daal jàpp na ne scandale yaak ay toog ay tappale ki loolu la ko jàppee gis nga ko mag euh, président Moustapha Niass moom moo nekk ci xëy yenn kaay bii di la tribune moom jàpp na ni daal gis nga ko noonu Moussa ñas mu ngi ci képp koo xam ne daal maanaam moo jël raw gàdd gi ci teggi mbalaanu kiiraayam ah dafa mel ni moom ñaari législature yi mu fi jot a jiite daal leen fi tekki mbalaanu kiiraayu député musul am ci histoire Sénégal euh, Walf moom daal di ñëwaat ci lu am solo mooy fàtt ki ne nga doon wax sànq chirurgie opération ci wàllu bët cataracte bi gis nga ko loolu mu mel ni kon euh, euh, ñu toll ci juróom fukki doomu aadama ay cas ñi ngi xaar salle d'attente kon mu mel ni lim bi takku na président Macky Sall ma nga war a dem ca Casamance les échos daal di ñëwaat ci rapport bi nga xamante ne gis nga ko Oxfam France def na ko ci lépp loo xam ne daal banque française yi fii ci Sénégal ni ni ŋàccee ni ñeek loolu daal noos lañ ko jàppee et puis kii moom goro la ci Macky Sall muy Adama Faye moom dafa mel dafa war a war am lisam fële ca Grand Yoff pour def ak defante ak nguur gi jeexale ko record ak exclusivité capitaine équipe nationale bu Sénégal Kalidou Koulibaly jàpp ni daal match yi am na ay but yu ñu encaissé yoo xam ne mënu noonu ko moytu Neymar ak Brésil ña nga ca yoonu dem fële ca Qatar ñoom am seen ticket Sadio maane mi ngi ci xëtu yéenekaay bi di vingt une passes décisif la def muy loo xamante ni kon ah, moom Sadio maane mooy tax gaa yi di dugal et puis jeexale kook suñu làmb gis ngeen ko noonu kon Balla Gaye ah, ah, doit warta warta sous-estimer dal li nga xamante ni kon moom mooy yu mel ba tax na ma ngay dem fële ca tugal ngir daal di waajal INSEPS la bu ko defee waajalaat combat am ak kii di Bombardier ak Bombardier euh, incha allah yàlla nañ ko fekkee ca talko mu mel ni li ñu cërale woon ci waxtu wu njëkk jot na bàjjenu gox euh, ba alxamis euh, incha allah ci beneen sujet wér gu yaram. incha allah ba alxamis dig daje ni ko waxee rek daañu indi leneen ci wàllu wér gu yaram. Mm-hmm. jërëjëf suñu bàjjenu gox Fatou Kiné c'est toujours un plaisir ñu ànd ak yow Mokhtar la.